allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu allahu akbar kullama abraqa uudun wa asmar wa halala muhallilun wa kabbar وسام سائم في مثل هذا اليوم العظيم فأفضل الله أكبر مع سلية التراويح وأداءة المساجد بالمصابيح وذكر الله بلسان عربي فصيح وتجنب السائمون في مثل هذا اليوم العظيم كل فيل قبيح الله أكبر ما أعقب الفطر الصوم وذهب يوم وأقبل يوم وأيقظ الله الغافلين من السنة والنوم وغفر لهم الخطايا والذنوب وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعصيا وحين تسهرون ayyuha nnaas inna yawmakum haada yawmun azimun wa iidun karim mbokk yi gannaaw bi ñu leen nuyoo ziyaare leen sant leen yàlla mi nga xam ne wuy ji ngeen ko bi mu woo leen wooyee bi mu wax yaa ayyuha alladina amanu kutiba aleykum siyaam kon yàlla dafa boo ay ñoñam ñi nga xam ne leen koo gëm mu jox leen lu toll na weeru koor ñu woor ko kon nag war nañ leen ndokkeel wa ahla lakum taama yàlla dagal na leen tey ci bis bi nii lekk ak naan te tere woon na ko lu mu weer mm. waaye tey jii or araam na ci koo xam ne xam ne na julli la kon yàlla ndigalam ngay doxe waaye doo baril doo wàññi wa ma aleykum fii siyaamu wa xatama bihi saxaral mukarram tey bés bi ci la motalay weeru tedd bi muy weeru koor waaye nag wa fataha bihi suhurul haj ubbi na ay weeru aj aj ay weer la tey jii ubbeeku na yàlla toujours day joxe loo xam ne dañu jo euh, euh, jegeel yàlla suhurul haj baytullaahi alxaraam foofu rek lañ koy def wa huwa yawmu tasbihin wa tahmidin wa tahlil bis bi nag bisu sant yàlla bisu sàbbaal la bisu wax laa ilaha illallah wa taazim bisu màggal la wa tamjid bisu dara la fa sabbihu rabbakum wa azimu yi na ngeen su sàbbaal suñu boroom nañ ko màggal fii ba ñu toog bu ñu bu ñu dañ mukk di nañu dellu ci yàlla wa alamu anna allaha qad irtada lakum haza diin nañu diine bi diine bi daal mooy diine ci yàlla te yàlla rek a fi ne leen nekku fi ñëpp nañu ñëpp ci diine bi njàpp ci bu baax diine nag neexatul ñëpp ndax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ñëpp sa diine mu ngi mel na ñëpp xil xalu sawara ni noonu mettee noonu la ñëpp sa diine def la koy yàq da ko bari loolu la environnement bi yëpp lu ñëw da lay bëgg a yëngal ni ngay jàppee nag xelu sawara di def ci loxo bii di bëreeg moom noonu lay war a jàppe suñu diine waaye yadakum bii yàlla de déeral nañu ci bii wasamaakumul muslimina tudde nañu ñi nga xam ne dañoo gën wata nazatul mala wata nazalul malaaykatul kiram fii yawmul iid fii ahlil islam saafahul qubula fii wajhi man saama baqaam bisu tey bi nag malaaka yi dañuy wàcc si tim ci ñu ngir li ñu am ci teraanga ñëw di ñu ndokkeel di ñu màggalal bés bi mel na bisu àdduna bu am bu fekkee rëy na euh, ñañu wax ne ñoo moom réew ma ak kàngam yëpp dañuy ñëw màggal ñooñee dañu am licence wala dañoo am mbégte wala loola malaaka yitam bi dañuy ñëw ngir teraanga bi nga xam ne yàlla may nañu ko tey ñu ñëw ñoom itam ñu participer ci hmm. yàlla nañu ko yàlla def amiin yaa rabbi waaye nag te euh, saafahul fii wa ci man saama nag wagaam hmm. fa yaa sa aadata man ubbi la maa ngi woo texe ci ñi nga xam ne yàlla nangul na la sa koor hmm. wala mu nangul la say naafi la kooku am na texe joo xam ne benn texe féetewul ko kaw war rujuu ilaa daati rahmaani nag alaamatul ubuli war ridwaan waaw dellu ci yàlla koor gi am lu mu def ci yow jeexit yoo xam ne da ngay dellu ci yàlla loolu koor gi bi mu ñëwee dala koo bàyyee gannaaw bi ngay lekk ak naan ak yeneen yoo bàyyi woon te koor gi moo la taxoon a bàyyi yooya te mu nekk yu ñu war a bàyyi yooyu danga fi bàyyi waay ya dagaloon ca yow nag yooyu mën nga cee dellu hmm. waaye nag koo gis woor nag ba pare génn weer wi waaye nag la mu bàyyee woon lu civilisé wut loolu lépp bay war a ko ba tey xamal ne ko yàlla nangul na ko koram war ridwaan way lan yëpp nag ca yaa ngi la tere woon yu ñaaw yooya abaaya yi nga xam ne ñoom xale jigéen yi doon sol ci koor gi ak yu mel noonu ak yu mel noonu ñu ne ñu summi yooya yëpp ah loolu day day tegtale ne koor gi nangu alaamatul ardi ku ñu dàq wala xisdaan ak ku ñu ku ñu ruslu xisdaan nan lan lay teg di oro allah allah ibadallah fa fi taqwa najaax wal karama wal fawz wal falaax fa fi taqwa ci ragal yàlla rek rek rek ci la jàll nekk bu doon examen mm-hmm. bu jag bu ragal yàlla rek ndax yàlla indi na fi nit ci diir bu gàtt diggante gane àdduna ak génn àdduna dafa gàtt lool fii nag la war a def li muy def fii la war a bayee li muy bay nee na nag bu fekkee ne ba noonu kooke day ci mbir moom fa fi taqwa am na jax ragal yàlla rek moo fi nekk moo lay bale yàllale wal karaama moo lay te leer te daa nga amul lu dul ragal yàlla wal fa moo lay ca xeer wal falaax moo lay may jàmm iyaakum summa iyaakum alkas bu wal xiyaat maa ngi dénk sama bopp di leen dénk bàyyi fen maa ngi koy dénk sama bopp di ko leen dénk fenn amul njariñ àdduna amul njariñ allah kon nag nañ ko bàyyi iyaakumul kasb wal xiyaana ak wor fen ak wor nañ ko bàyyi danga koy dénk sama bopp di koy yóbbu fa jamiul xayri fi sidqi wal amaana mbooleem yiw nekk na ci dëggu fi gi war amaan ak wóor nit ki boo wóoree dëggu woo leen xeetu mbaax daje na ci yow yàlla taala ala laanatullahi alal kaasibin yàlla nee na sama rëbb man yàlla nekk na ci ñiy fen ñiy fen yàlla nee na rëbb naa leen wa qaala aydan inna allaha laa yahdi kaydal xaayinin man yàlla daal du ma du ma jubal mukk pexe yi noonu kat euh, warkat warkat ni mu defee ni affaire bii na dara jàll noonu yàlla nee na lu jàll de parce que man duma ma ko defar fa baadiru nag xiraaj yi zakatul fitr mu axara li siyaamikum kon nag lii point bi dëgg rek nañ gaaw ko génne asakay mudd koor mooy mooy setal suñu koor wa fii zakatul fitr nazala nga dafa xam man tazakka wa zakara asma rabbihi fa nee na aay aay bi mu ngi wàcc ci asaka mudd koor nañ ko joxe wa hiya waajibatun faradaha rasul sallallahu alayhi wa sallam indal jamhur alhadis qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sahru ramadan muallaqun bayna samaai wal ardi wala yurfau ila zakaati fi sallallahu alayhi wa sallam nee na weeru koor duñ ko yëkkati nit yi lu dul dafa génne muuru koor jox ko jullit ñi ndax ñaar amuñu dann koor ak sarax gis nga ba defee yàlla lu ko naqari nga bugg a tuub ñaar rek ngay jël wala yeneen ànd ak yooyu da ngay saraxe wala nga wor loolu julli mënu ci dara dem makka dem mënu ci dara parce que dafa am njariñ wajtahidu fi ixraajiha nañ góorgóorlu parce que génne alal joxe ko lu metti la waaye nag fajte wajtahidu fi ixraajiha nañu góorlu di ko génne génneel ko sembindaan génneel ko képp koo xam ne yaa yaa yore dépense am fat fu waxaanee foqara nañ ko jox ñu ko yittewoo wa ixwaanakum ak suñu mbokk yi waa ganaahum anil jawlaani bu ko defee bés boobu dañu am fu ñu jàpp bokk ci feet bi ndaxte ab séeréer wala moo ba bokk ci feet bi dafa am añ boo amee añ nag am loo ci ànd loola da nga am mbégte te doo jaaxle moo tax lislaam bëgg ñu bañ koo joxe démb wala barki démb bay ba tey parce que boo ko joxee démb wala barki démb xale yi mën nañoo pasar pasar xaalis bi bu bis bi ñëwee mu tumuraay moo tax it loolu moo tax itam dagan na nga jël ñaari kilo yooya nga ko doon joxe nga def ko daal joxe ko xaalis loolu lépp lii pour nit ki bañ a jaaxle rek mm. Mm. tey du fi ikraajiha man tajibu alayhi nafaqatuhu képp koo xam ne dépasse am moom la war moom yaa koy eh, joxeel dépasse ci kër gi lay aña di reere génneel ko wa tasbudu ala man mada fihi musar aywa wala tasbudu bi mu di zamani bu tey passé amoo ko boo ko amee ëllëg wala ba gannaaw ëllëg mën nga ko joxe wa tasbudu nag ala man mada woo fihi musar koo xam ne nag yàlla nañu ci yàlla musal ñàkk gi dafa continuer mm. amul kooku itam da koy bàyyi fa innaha insha allahu kafaaratun li zunubikum joxe asaka bi mooy nekk kafaara seeni bakkaar wa wasilatu li ubuli si yàlla mooy jokkoo yàlla nangu leen seen koor alhadis qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man saama ramadan wa adrahu bi sittin min sawaal kaana man saama daar képp koo xam ni motal nga weer bi ba noppi ci biir ramadan min bi li tabiit la weer bi nga war ci juróom-benn fan. Mm. mu toog loo wala mu bañ a toppatoo. Mm. parce que ñaari fan ñaari weer eh, juróom-benn fan bi day taxaw ñaari weer. Mm. mu complété weer bi amoon nga ci fukki fukki weer. bi nga wooree weeru koor am nga fukki weer. war a des ñaari weer ci at mi. boo ooree juróom-benn fan ci biir eh, sawaal bi ñu nekk. am mel na nga ko woor at mi. ah wa man asalla yawmal iid kaana asaahu fi yawmil wa'iid nañu lekk nañu naan. Mm-hmm. nañu def lu ne waaye nañu wattandiku bis bii mooy ci yàlla képp ko mooy yàlla ci bis bi dafa mel ne bisu àllaaxira wala bis bi yàlla euh, di giñ ak nit ñi ku ku mooy yàlla bis boobu mooy yàlla mu mos daga mm-hmm. waaye rawatina bés bi Mamour waxoon na ko léegi boo boo bu koor gi passé rek da nga naan lépp baax na mm. euh, dootoo dootoo ma gisati jàkka ya ma gisati jàkka ya te da daa daa daa ñëw mm-hmm. ak yooyu ak yooyu moo tax it bi tey bés la boo xam ne seytaane dana wax nit ku ñuul ko ne ku ne ba dara na la lu ne waaye kenn ku ne nag bés bii moom bu mu ci mooy yàlla waaw parce que moom man asallah yow ma it fekkee ma annama asaahu yow ma lu it kon nag ku kullu amin wa antum bi xayr aadahu llahu alayna bil jumni wal xayr bi jaahi seen gaballahu siyaamana wa qiyaamana yal nañu yàlla dolli sutura yal nañu yàlla dolli sutura l'islam nag l'islam ba l'islam jàmm jeex jàmm parce que euh, laylatul qadar mm. saar wàcce wàcc boo ko jàngee salaamun hiya ngay salaam mm. booy julli mm-hmm. ba sa julli mot mm-hmm. doo wax laa ilaha illallah doo wax lan ngay wax assalaamu aleykum kon yàlla li mu ñu digal daal mooy salaam mm-hmm. ndaxte kenn jëfante bu ne kenn ñëpp yàlla la ñu jëfanteel waaw kuy jëfanteeg yàlla nag Mm. te bu loo fi jëlee dañ lay jébbal sa borom fañ lay jébbal di bàyyi sa xel ku la tooñ nekkul salaam ibaadu rahmani alladina yamsuuna ala ardi hawnan wa iza xaadabahumul jaahiluuna qaalu salaam ku ñëw di xul nga ne ah jàmm rek tey feree nañ jul euh, l'islam nag jàmm la xam naa ne waxtu yu jot na parce que si laaj Maalik waxoon na radiyallahu taala am téeréem di xutbaam bu ñu wax dégg naa nee na wan bu demee ba jamaanu sori nit ñi dañuy yàkkamte ba duñu xaar xutba bi si Malick hmm. yal yàlla may ñu fekk ay déwén déwén te rafetu fett yi yal nañu yàlla may ñu jubboo déggoo ndaxte loolu mooy lislaam hmm. bu ñu jubboo bu déggoo bu ñu nekkuñu ci lislaam hmm. yàlla nag moo ko moom moo koy may ku ko xaaj ku ko soob yal nañu yàlla soob ba may ñu ko salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ñaanal ñëpp ñu ngi ñaan Thierno Abdoulaye suñu njiit mii muy njiit mu tabar fakala mu mu dal xel yal na ko fi yàlla yàggal te ngeen xaarandi tuuti ñu mottali mbir mi uh-huh. uh, dara yàggul salaamaaleykum mu ñuy ziyaare itam ci bés bi nee na mu sàkk ñun ñëpp ñu jëggal ko ñu ngi sant yàlla nag bu baax mel na na jëf ji mat na heddi ko ina ñaago Allah yàlla waɗa golle jaɓaani li fi des daal ñu ñaan li ñu def yàlla ko yàlla dafa ay jëf ñu yàlla nangu yàlla jaɓaani en koor koka yàlla ñu yàlla nangul suñu koor yaafo en terbuute ɗe mu jiital ñu itam suñu rëcc rëcc yàlla may ñu itam ñu fekke ko déwén mu ne a loo xam ne waroon nañ koo wax wax nañ ko jullit ñi dégg ngeen ko jàpp leen ko te jëfe ko mu ne liñ fi des rek muy ñaan yéen a ngi fi dégg ñaari tànk ndax jullit ngeen am ngeen wàll ci jullit yi te itam yéenay bi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

والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينصر الإنسان مما خلق خلق من دافع يخرج به سوى الترائب إنه على رجل لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ساترة ولا لسات سده إنه لقول الفصل ما هو باللسل innahum yakiduuna kaydan wa akiidu kayda fa mahilil kaafiriina amhilhum wayda bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin rahmaani rahiim maaliki yawmi diin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdinas siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin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 Adiós.